toujours, euh, on va rester. axé sur euh, la formation du nouveau gouvernement ñu gis ni am na benn changement bi nga xam ne ni am na ci mooy euh, ministre euh, mooy Matar Ba ak ba Diattara sénégalais yu bari d'accord ñu ci changement boobu noonu parce que dañu jàpp ni ki nga xam ne ni moom mooy Matar Ba comme que demoon nañ ba nga xam ne gagné na coupe d'Afrique bi et puis qualifié coupe du monde dañ ko waroon a bàyyi mu eggale coupe du monde boobu ban xalaat ngeen ci am yéen waaw man day affaire remerciement jëmm jooju y a des non xëy na ci euh, fan yi ñu jëm du ñàkk mu am yu yu ci yoo xam ne fësagul xëy na su boobaa dana fës waaye moom wax dëggee yàlla boo duggee ci réseaux sociaux yi les témoignages sont unanimes ci taxawaayam ci présence am ci euh, faydaam ak taxaw gi mu taxaw vraiment le monde sportif d'une manière globale Eh, te yàlla dimbali na ko ba magistère am yëpp ay ndam rek waaw ci wàllu coupe d'Afrique bi ci wàllu euh, match de qualification Lions yi et cetera et cetera waaye nag fi ma lay remercier bu baax Makhtar Ba moo di euh, l'affaire Idrissa Gana Gueye voilà ndax euh, waa Paris Saint-Germain dañ ko doon bëgg a jaay doole parce que dañ ko bëggoon solo t-shirt góor jigéen mu bañ gaa yi ne ko non euh, am na prime de match de cent trent million mu ne bu doon un milliard sax du ma ko sol parce que dëppoowul ak samay gëm-gëm ak samay valeur xasuma ñi koy sol nag waaye man am naa droit gàntal bref vous connaissez l'histoire parce que Sénégal seet defoon na ci ay ay ay ay xëtu yaatu alors bref euh, ñun bindoon nañu ko bindoon nañ tamit Augustin Tine ak yeneen autorité ak Macky Sall voilà Macky jël position def euh, benn tweet mais que je soutiens sa Gana ses croyances euh, religieuses doivent être respectées mu yëngal àdduna bi yëpp voilà Makhtar euh, bàyyi tamit am na lu discret lu mu ci def parce que ñun dañ doon def benn manifestation fële ca Pencum Santhiaba qui est le le quartier not le le fief de Idrissa Gana mbokkam yëpp a ñëw ñu lancer suñu plan d'action Eh, war a defar ay t-shirt war a defar ay banderole doon waajal match Sénégal Bénin parce que dañu bëggoon def benn standing ovation voilà comité d'organisation bi wax nañ mag ni nga leen taxawoo yow Makhtar Ba euh, Seydou Gueye tamit taxawu na leen Bamba Fall le maire de la Médina taxawu na leen ak tamit Augustin Tine et ça a un succès notre compatriote a été a été euh, glorifié standing ovation de plus de cinq minutes ba defe naa loolu bokk na ci li tax la press occidentale pro LGBT bi ko doon diaboliser defe naa bi ñuy gisee mobilisation sénégalais yi derrière Idrissa Gana Gueye dégg nga ànd ak moom ci posture am posture de dignité alors defe naa loolu tax presse bi daal di reculer voilà kon nag loolu yëpp c'était sous le magistère de Makhtar Ba voilà kon nag ñu ngi ñaan président de la république euh, mu mu mu xoolaat. Euh, mbiru Makhtar Ba waaye certainement am na fet leneen du ma ko soxlaa parce que c'est un compatriote très compétent voilà léegi nañ ko wóolu rek te wóolu kilifaam. la question du troisième mandat mu mel ni mosu fee jóg et que ñu gis ne am na ay euh, artistes africains yi nga xam ne nii dañu ñëw Sénégal pour organiser fi benn concert bi nga xam ne nii dañuy xeex wàllum. Euh, troisième mandat et que ñu tere leen ko fii Sénégal ne du fi amee Jamra ban jàngat la def ci loolu. waaw xam nga Sénégal day traditionnellement dafa nekk euh, comme c'est consacré dans la constitution un pays de liberté euh, de démocratie les lesquelles euh, vertus son consacrées par la constitution bi dëggal liberté d'association et liberté d'expression voilà mais sincèrement gëstooguma motivation yi waral ñu ne leen waruñu daje waaye certainement am na lu tax ñu wax leen ko voilà bu ñu ko gëstoo nag ba xam lan la lan bu dee c'est des motifs farfelus Jamra dina ci def déclaration jël position bu dee état dafa invoqué des motifs yoo xam ne xëy na euh, mu am ay informations que nous nous n'avons pas voilà su boobaa yi tamit ñu xam ban taxawaay lañ ci am parce que suñu diine moom moo ñu jàngal ni. Euh, nu mu tuddati euh, wama shahibna ila bima alibna le croyant ne doit témoigner que de ce dont il est sûr motivation la joxe ba ba gàntal ñi ma xam ci état bi danaa fexe am ñu ma ci ceddoo ba xam mais si c'est des motifs farfelus Jamra dana taxaw fii jël fi position incha allah alors euh, ñu terminer ak benn point bi nga xam ne ni dafa mel ni information bu bees la que ni Jamra mi ngi annoncé benn plainte euh, parce que naturellement dafa am euh, ay sac ak wàll yooyu comme ñu ngi jëm ci wàllum ouverture école yi ñu daal si mu am daal mandargay lobby LGBT yi alors loolu lan lañ ñu si mën a indil comme leer ñun koy annoncé wuñu plainte ci dañu plant voilà li tax déposé ko dañuy xaar ministre def passation parce que Assome Diatta moo ne woon commerce léegi nekkatu fa ku ñu fa defati sax euh, jàppatuma ko am na ku ko remplacer voilà bu defee ak kooku passation ci lañ koy doog a déposé mais plainte yi pare na waa xam nga Mohamed euh, yàlla dogal na Sénégal dafa nekk ci euh, tournant bu délicat mooy dëkk yu bari ñu wër lobby fexe nañ ba am porox ndol la bu ñuy jaar ba def fa ay dégâts boo demee Gabon ngóor jigéen assemblée ba daganal na ko le 23 juin 2020 le Sénat l'a confirmé trois jours plus tard le 29 euh, Centrafrique daganal na ngóor jigéen Île Maurice daganal na ngóor jigéen ba Cap-Vert bii ñu jege nii sës rek Sénégal daganal na ko Sénégal moo leen jaaxal ak Mali je vais parler tout à l'heure du cas du Mali alors euh, yàlla dogal na nag ñun le 17 février amul benn organe de presse écrite bu mën a wax ni jotul alerte ba Jamra ki euh, euh, kii woon rendre woon public di leen wax ni directrice générale bu UNESCO UNESCO benn banqaasu Nations Unies la bu féetewoo wàllu njàng njàngale mi ak euh, wàllu culture ak caada directrice bi ñu di ko wax Audrey Azoulay am na benn document boo xam ne téeméer ak juróom benn fukk ak ñeenti xët 164 page moom la jël def ci lettre d'accompagnement signeel ko boppam jébbal ko à tous les chefs d'État francophones qui bénéficient du concours financier de l'UNESCO alors Jamra wax ci déclaration ba ñu jébbaloon presse bi je rappelle la date le 17 février 2017 ñu di leen yëgal ne document ba ñun xool nañ ko tey na xel ay naka la def ba jot kook alors que si destiné au chef d'État c'est une autre histoire waaye xool nañ ko tey na xel premièrement nee nañ dañu bëgg a dugal un module d'éducation sexuelle au niveau de la maternelle maternelle Mohamed mooy cinquante ans 6 ans mais xale bu am cinq luy yoonam ci li xew ci néegu sëy loolu sax nañ na mënees na ko muñ euh, bàyyi mu jàll waaye boo xuusee waatee ci document bi parce que dañ ko compartimenté par module lii mu ngi concerné maternelle